asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki eh, téléspectateurs yi seen télévision Assalaamy TV bokk yi nga xam ne ñoo ñi bàyyi xel ci sunu seen YouTube ci Assalaamy TV di ñu bàyyi xel ci seen rajo Assalaamy FM 99.0 seen bokk taalibe Fallou Galass Syll mi ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii nag ci saate ci benn émission bu ñu leen di amal semaine bu jot te mu tudd émission fii fan la. bokk yi xam ngeen ne yéen a ngi ñuy topp ci seen émission ki kan la di ko ànd ak alaaji Modou Mbaye Touba géwélu Xaadimu Rasul waaye yéen ngi ñuy topp itam ci seen émission fii fan la di ko amale fii nag tey ci saate mbokk yi xam ngeen ne am réew dara mënu koo soqali lu weesu am mbay lin suñ borom subhaanahu wa taala jox ci suuf jox ñu ko ci xéewal guy bàyyi ko ci asamaan ci am ndox joxaat ñu ko ak xéewal ci luy bàyyi ko ci suuf ci doon am ndox ak li nga xam ne jox nañu ko tam mu doon li gën a jafe muy espace bokk yi bay dunde war naa mën a yomb loolu nag ku ne xam ne ne président de la république eh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay ànd ak premier ministre am Ousmane Sonko ñi ngi woo Sénégal gépp ci consommer local ca loolu mooy bay dunde bokk yi nag ma ñëw seet si kenn koo xamante ni bii kenn du ko présenté mu di monsieur le maire Abdou Lahad Ka bu ñu waxee Abdou Lahad Ka dañ naan opérateur économique bu ñu nee Abdou Lahad Ka dañ naan entrepreneur bu ñu nee Abdou Lahad Ka dañ naan maire Touba bu ñu nee Abdou Lahad Ka dañ naan cultivateur bu ñu nee Abdou Lahad Ka dañ naan éleveur yaakaar naa ne nag yooyu soo àndee mooy li nga xam ne mooy développer am réew jëmee ko kanam mbokk yi tey ñëw naa fii ci saate ànd ak sama caméraman di leen wan li nga xam ne Serigne Abdou Lahad Ka mi ngi koy liggéey mu jëm ci wàllu maraîchage gis na da ngeen gis tooli salade yi da ngeen gis tool yi kaani yi da ngeen gis tooli bisaab yi waaye bokk yi maa ngi fii nag ci tool boo xamante ni bii fii la ko bayee tam nekk soble soble bu mucc ayib ma di ci de ànd ak sëriñ Cheikh Lo mi nga xamante ne bi ku ne xam ne ne liggéey na ci ba tàyyi may ànd ak moom rek mu ñëwal leen ci taarixu liggéey bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad Ka mi ngi koy liggéey tam jëm ci wàllu mbayum soble sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar di la fay bu baax a baax. sëñ ñëw naa fii fekk ngeen di bay soble soble bu ci ay. Mhm. ma bëggoon a xam yow say jaar-jaar ak lu la boole ak Abdou Lahad Ka. Mhm. ak taxawaayu sëñ Abdou Lahad Ka ci wàllu liggéey. Mhm. lu jëm ci wàllu mbayum. dër tam jëm ci bay dund salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi sant yàlla bu baax di sant uh, sëriñ Abdou Lahad Mbacké sunu yaakaar te ëllëg di sant sëñ Moustapha Bassirou Mbacke di sant sëriñ Mountakha man nag am mbay dama ko bëgg lool ndax laataa may dem daara danaa fàttali tuuti sëriñ Abdou Lahad Ka li ma koy fàttali mooy bi may tuut tànk nekk Louga doonu moon wàcc ab lal ndax feebar feebar daf maa yàgg sono lool bi sama yaay jógee Louga dem Belal fekk fa sëriñ Abdou Lahad Mbacke ànd ak sama maam soxna Faati Mbacke jógee kër sëriñ Arif Lo bi ñu demee sama yaay ne ko sama doom ji du wàccu la ndax feebar mu ne ko ah loolu de doy na waar ndax damaa bëgg nga ñaanal ma ko ba mu dem ci daara ja tërbiye ji mu ne ko yaa ko wax de ba muy ñetti yoon bi mu ko waxee mën a bërit daal di jug da wut Sëñ Abdu Lahat falaa daanu fekk booba kees gi ñu ngi ko mbay mbayum gopp muy nawet si Abdu Lahat daal di jug ci kiimaan ga daal di may jug daal di may yëkkati bi ma yëkkati daal di ma sëñ daam yaa daanu di daal di yëkkati toog ci njowaan gi faxasal ma sama kanam gi ba mu set mu daal di jël sama poos yi def ci mbiskit ba mu fees del nee na dana wér te dana barkeel te dana dund boobaak léegi nag maa ngi sant yàlla bu baax ci laa jóge weer lañ ci teg suñu saa bi siru jël si ma yóbbu ma daaru nam saalum ma tërbiyoo ji ci laa jógee ba am ngërëmam muy làq ngërëmal sëñ Moustapha Bassirou muy ngërëmal yàlla ci man bi nga fa jógee nag mu boole ma ak samay mag may liggéey gannaaw bi laa dikk ci sëriñ Abdou Lahad Ka ànd ak moom ci liggéey bi ndax man dama xoole jëmmi sëriñ Abdou Lahad ci ak ñaan ma sëriñ Abdou Lahad ñaanaloon loolu dama ci sant yàlla bu baax dafa mu àgg rek looloo tax mu àgg fa ndax wéradi ci laa nekkoon dootuma ci jóg gannaaw bi nag mu ñëw suñu kër mu wax sama yaay ne ko ah toolee de kenn nekk fa bëgg naa ko fa nekk ci la ñëw waxtaan ak man ci laa ñëwee ci tool bi mooy sama ñetteelu at yaakaar naa booba tey maa ngi ci tool yi maa ngi ci sant yàlla bu baax di ko ci sant nag ndax bu ko neexoon mu tëj ay toolam fii li fi tedd ci koñ bii ci saate nit mun laa xam tool ndax ñu bëri ci lañ yor seen kër di ci dundal seen njaboot di ci dundal ci dimbale seen i borom kër ndax bis bu nekk lay lu mat fukki jigéen danañ fi xëy si danañ fi ñëw léeg-léeg nga fay kenn ku ne 1500 loolu ñaata la ñaari weer wala weer wu nekk loolu xaalis bu weex tàll la te ko bañ a dañuy ñëw di watt si kànja wala ñu ñëw di buddi si soble wala ñu ñëw di journaliser euh, euh, ku wàcc da ko fay 1500. kon da ngeen fi bay dañ fiy bay kànja euh, nañ fi kànja goo xam ne daaw macha allah rafet na lool te jaar na yoon it te moom jàmbaar la joo xam ne bu ko neexoon mu tëj ab toolam du ko wàññi dara. waaye nag dafa bëgg a développer réew mi bëgg a suqali réew mi bokk ci ñi nga xam ne maanaam ñooy première yi nga xam ne ñooy suqali réew mi ndax mbayum soble li ñu ci dugal man maa ko bëgg ndax bi ma ñëwee gis tool yi salaat rek lañ fi doon bay ma ne ko nijaay sëñ Abdoulaat tool yi war nañu fee mën a bay yeneen i mbay ci la ma jëndale jiwu xaal jëndal ma jiwu kànja jëndal ma jiwu soble jëndal ma jiwu tamaate jëndal ma jiwu kaani ñu commencé ko fee exploité yooyu nag biñ ko fi dalee defar rek alhamdulilah yëpp suñu borom def na ñu ci ndax premier at mi njëkk a bay maa ngi am fukki saak yu soble laa am at ma ca topp maa ngi am 28 saak at mi ci topp lii bu ñu usalee dana mat 60 saak loolu taw feex la kon ak yokkutee ngi am ak deltu gannaaw amu ci te bu ko neexoon mu tëj ay toolam dem ci boppam waaye nag ngir dimbale jaami yàlla yi rek susuraal jaami yàlla yi ak bokk ci ñuy développé réew mi loolu rek ci lay ndax tool yi daanaka bu ko neexoon li mu fi amee du dara waaye nag xeebu ko ndax ñaar dërëm yi mu fi am dana yëkkati ab poosam dugal ko ci xam ne lii ca mbay ma la jóge lu barkeel la kon loolu ñu nit ci lañ yor suñu njaboot ci la ñuy dund ci la ñuy dundal suñu njaboot gox bi yëpp ci la ñuy dund kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax état bi war na koo jàppale war na koo taxaw bu baax taxawu askan wi ci bay dunde ndax réew mi li fi am buñ ko buñ ko buñ ko exploité dootuñ jéggaan dara bitim réew soble bi kañ lañ ko deqi woon ba ñu koree lañ ko deqi woon ba tey soble bi mu ngi tëdd fii. am na fi ñetti weer am na fi ñetti weer. dara sikku ci te mën na fi amaat juróom-benn weer. kon ñu ngi sant sëriñ Abdoulaye te di ko gërëm bu baax a baax a baax te di ko ñaanale suñu borom defal ko fan wu gudd ànd ak weer defal ko tawféex ba li mu bëgg a liggéeyal yoonu islam suñu borom jàppale ko ci li mu bëgg a liggéeyal Touba suñu borom jàppale ko ci li mu bëgg a liggéeyal gox bii di saate suñu borom jàppale ko ci ba loolu ko barke Cheikhul Khadim. jërëjëf sëñ Cheikh Lo eh, mbokk yi ñoo ko déggandoo kon bay dundee consommer local yaakaar naa ne ci lii lay tàmbalee waaye du ma yem ak sëriñ Abdou Lahad yem ak seen émission fii fan la mbokk yi damay jóge saate danaa leen demal nag fii nga xamante ne bii eh, moo di boori Daaru Saw su ma demee danaa leen wanaat beneen hangar boo xamante ne bii lan la fa sëriñ Abdou Lahad Ka di def mooy foofu la dajale nag machines yi nga xamante ne bii ñooy xolli jiw wi ca benn machine boo xamante ne bii mën naa xëy xolli vingt tonnes ci gerte def ko kemb loolu yaakaar naa ne liggéeykat dëgg moo koy am te gerte googu moom muy xollikat moom moo koy bay fan la koy bayee bayti loolu di dëkku cosaanam di dëkku maamam kon damay ànd ak yéen rek wan leen sëñ Abdou Lahad Ka nan la waajale nawet bii nga xam ne moom la ñuy waaj a dëgmal ci wàllu aw jiwu mu jëm ci gerte mu bay ci mbayum dugub mu ba jëm ci wàllu mbayum sesaam nga xamante ne bii bay na ci lu bare bari loo xam ne bi mu e def ko segal def ko déwlin ca loolu lépp mu ngi jëm ci wàllu consommation local kon bu leen toxal seen ànd topp leen ñu ñu ànd ak yéen dem wan leen sëñ Abdou Lahad Ka nan la waajalee nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal di 2024 euh, cinq